dal leen ak jàmm ci li yéen a koy xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien élection présidentielle 2019 Mbadou El Hadji Malick Gakou njiital grand parti mooy l'homme de la situation gannaaw taxawaay bi mu am xam-xam bekk wegg gi mu wegg askan wi nañ ko weggeek opposition bu Sénégal ak ni ko bàyyi xel ak ni mu mën a waxtaane ak ñoom tey jële yéen a cabinet moom El Hadji Malick Gakou kat xam ne mi ngi koy yëkkatee ak anam bi xam ne bi mi koy xeexee nguur a cabinet El bu ñu gam-gamle mbooleem ñi nekkee ci opposition bu Sénégal ak ñi nekkee koo xam xam ne kii gën nga ko am taxawaay wala sax nga gën mën a nekk candidat potentiel ci élection présidentielle ku du moom kaddu nga xam ne yëkkati na ko barki démboo Njaay ngir di rek sàkku ñu daal fexe ba libéraux yi nga xam ne ñooy burëk bu muy daanaka ay ata ngi ñu teggee leen ci bopp nguur gi teg fi ñeneen ak courage bi nga xam ne bi am na ko ci ay discours am li lépp Rewmi Quotidien El Hadji Malick Gakou ci boppam mën naa nekk homme de la situation quotidien ab recours ci boppam lañ doon yóbbu recours boobu lay maître ma dëkke ñang ci ni cabinet donte le loi boo xam ne bi conseil constitutionnel ci boppam war naa dellu gannaaw ci lu jëm ci loi ñeel mbirum parrainage bi te xeex bi ñuy xeex bi le ni ki démb conseil constitutionnel daanaka benn jéego dong la ndax buñ ca noppee ñoom opposition bu Sénégal ci boppam danañu dem ca cour de justice bu CEDEAO buñ ca noppee tamit danañu dem ca union tey ji la njiitu réew bu Cap Vert war a dem ci assemblée nationale opposition bu Sénégal ni du leen fa fekk ndax ñoom seen bopp dañoo nekk ci ab xeex boo xam ne bi dafa dox seen diggante que président Macky Sall moo tax dina cabinet njiitu bu Cap Vert dina dem waxtaan ak député ya nekk ci assemblée nationale waaye député yu benn bokk yaakaar dong la fay fekk Rewmi Quotidien député yu fari ci ku ji gay du mooyu nañu assemblée nationale du ñu fa dem tey jile di fa fekkante bu Cap Vert ni ki démb njiitu réew bu Sénégal doon na teewee conseil des ministres conseil des ministres yi mu baaxoo di amal le quotidien président Macky Sall ci conseil des ministres boobule daal na fay jël ay décret am ñu mu tabb am ñu mu wàccee ci ki mu tabb bokk na ci Socé Ndiaye Socé Ndiaye ci boppam yéenekaay bi di le quotidien moom la wutaleeg Babou Diakham mi jiite woon office du BAC boobu ak léegi toll na ci fukk ak juróom-ñaar ci ay at yéenekaay bi ne yemu ci moom président Macky Sall tamit daal na jël kii benn mu taxe las yéen kay ne président Macky Sall kay bu amee ñu mu yëgal tamit ni kii démb am na ñu mu wàcce ki taxaw ngir gën a taxaw entreprise française yi fii ci réew Sénégal mooy njiit réew bu Sénégal Macky moom président Macky Sall yi ni kay bi di source année gannaaw ni ko taxawaay bi mu am ci port autonome de ci autoroute Sénégal Sonatel ak taxawaay bi mu am ci mbirum télécommunication ci réewu Sénégal Total ak taxawaay bi mu am ci mbirum pétrole bi ci réewu Sénégal marque bii di assemble nag fekk baax ci réewu France fi mu ñëw ci réewu Sénégal ñu jokk restaurant bu université bu Thiès yi ni cabinet restaurant argentin bu université Cheikh Anta Diop bu française dugal na ci réew Sénégal lii lépp source année président Macky Sall ak tukki bi nemmeeku bi mu amuloon ca diwaan bu France ak Emmanuel Macron ak tukki bi mu amuloon fii. président Macky Sall ci boppam ma ngay wéy di gën a dooleel Emmanuel Macron ci mu gën a taxawal entreprise française fii ci réewu Sénégal réewu Sénégal libération yi ni kay ni marché yi ñu lëndëma lëndëm sax yoo xam ni daanaka amul dara lu ci leer Sarr moom la ñu nemmeeku ca mairie bu Ndakaaru yéen cabinet ca mairie bu Ndakaaru boobule ginnaaw lanket yi nga xam ne def nañu ko lu toll ci juróom-ñaari milliards yu toftal tuuti moo na fa mër ba tey fi mu toll nii ñit ñi di ko lañ bët ci ay marché loolu tax na société bii di CSTPSA sàkku ci ARMP di ko gi saytu lépp jëm ci wàllu marché yi mu ubbi ab procédure ngir leeral dëgg-dëgg sept virgule huit milliards yore fan la jaar jamono ji nga xam ne ci libération yi kay ni ñoom weddi li ni ba teg ko ci suuf li ñu weddeegul jamono ji mooy ki fi nekkoon directeur bu Sarr ak keneen koo xam ne kii moom itam ala xam la ñoom ñëpp dañ leen toppee ñaari plainte yoo xam ne yi ci wàllu ger lañ leen toppee bii ci douane bu Ndakaaru bile ca douane bu Londres mu tax yéen kay bi di observateur ne société africaine de raffinage de ji daanaka yëngu na lool te li fa dëgg-dëgg mooy ñu fa nekk ñu leen di joxoon baramu tuuma ci mbirum ger la tribune lan moo tax président Macky Sall ka kaddu yi mu yëkkati woon jëmale ko ne réew yi la ne fi ñu toll bu ñu xool dëgg-dëgg ak lajj dëgg-dëgg moo ci am ndax président Macky Sall kaddu yum doon yëkkati ci wàllu autosuffisance en riz daanaka ba mu koy wax dëgg-dëgg waajulu ko kii wàcc ak def ci am kattanam ngir nekk jour bi gën a xarañ ci àdduna bi yëpp stade yi ne kay ne mooy Sadio Mané moom Sadio Mané nekk taxawaay bi mu am ci Liverpool nee na ji li ko soxal du lenn lu may nekk meilleur joueur ci àdduna bi yëpp te moom Sadio Mané ne bi muy door ki nekkoon nekk roykaayam dëgg-dëgg ci wàllu football ci àdduna bi Ronaldinho la woon yéen kay yëpp daanaka ñoom itam amul kenn koo xam ne kii xëyu tey jile tàgge Habib Faye guitariste bi moom Habib Faye Rewmi Quotidien ak observateur ne kàngam dëgg-dëgg ci mbirum guitare dem na moo taxit yéen ka bi di observateur ne Habib Faye ak génn gi mu génn àdduna tax na daanaka ba fi ñu toll nii njiital super étoile ka tukki bi mu amal ci Kigali famm na ko ba jëmi jamono moom ab néew ma Habib Faye yéen kay bi ne ni ki suba ci àjjuma ji lañ koy xaar fii ci réew bu Sénégal